mbokk mi asalaamaaleykum salaam wa ñu ngi lay jaajëfal di la dalal ak jàmm ci émission seen kàddu ak ponk yi nga xam ne moom la ah, taxawal idi tey ma dalal quoi tey saa waaw parce que tey de saa bambay la xam nga idi xam nga lan moo fi am ah. man daal ji bi daf may jàngal olof te man sama olof dafa daal leerut waaw léegi ma bëggoon yow nga nga analyser ma li nga xamante ne moom la wax hmm. répété waatal hmm. nga ne koy xaakataay waaw xaqataayu malaaka ci biir ñu feebar mm-hmm. lu mu gaaw gaaw mm-hmm. ñii dee dinañ bëri lool sax keñ kon yow dégg nga wax bi lool sax keñ ñii dee ñoo sax foofu la waa waa fi nga dama ah. bëgg a ci loolu proverbe boobu rek fi nga xam ne fa la réew mi toll waaw xam nga foofu la foofu la réew mi toll moo waral lii lépp xam nga xam nga dèjà foofu noonu benn exemple bu gàtt rek laa ciy jël. Mm-hmm. waaw maanaam exemple bu gàtt bi moo ci jël mooy. Mm-hmm. quatre cent milliards yi nga xamante ne ni moom la njiitum réew ma génne na moom la mooy mooy des seeju. Mm-hmm. ah. waaw. lu ëpp ci quatre cent milliards yi si seen poste lay demaat ñoom ñooñu. xolal li ngay wax nii man moom moom laa njëkk samp ci ab laaj ne ndax koppar yi nga xamante ne moom la ñuy wax ne moom la ñuy fas yéene jël ngir développement localité bi est dañ ko fa def déjà. ndax danañ ko fa def. Jérôme 2012 ak léegi nguurug Macky Sall li mu li mu li mu li mu financé ci ay li mu dugal ci ay milliards ci loo xam ne ay projet la wala ci loo xam te ne da ko war a def lépp. ci ay milliards lépp lépp lépp boo ko xayma woon di ko séddale 17 millions sénégalais xam nga kenn ku nekk ñaar lay am. waaw. kenn ku nekk 82 millions lay am. ci 17 millions d'habitants yi. kenn ku si nekk 82 millions lay am. lu teg as as as lëf. xanaa loolu ko xanaa loolu. ëpp na ëpp na quatre vingt mille millions quatre vingt mille milliards xaw li mu kat. Eh. kenn xamul nu mu toll ci ci alal du Sénégal. waaye loolu lépp xam nga xam nga tey xam nga tey jii nii. barki de moo jaay liñ ne moom la ñu génne euh, tàmba mhm. waxaat ko Kees. Mhm. ñëwaat waxaat ko euh, euh, Sédhiou. Mhm. gis nga boo doon jël benn exemple day mel ni sëyu góor ak jigéen rek ku góor ki mooy versé waaye effet bi ci ku jigéen ki lay génnee. la ñu wax ne moom la ñuy def séegu lañ fa war a te lañ fa war a def ci ci alal quatre cent milliards yooyu noonu. xam nga loolu la loolu lan la ñuy jural xataayuk ndakaaru la ñuy jural parce que loolu lépp dañ koy sàcc tabaxaat kaay immeuble biir ndakaaru doy na na tàmba tàmba na mu demee noonu yow leer na la ni ndakaaru li fa nekk caay ay immeuble ak ni mu xate ñun ñi nga xam ne fa la ñu juddoo màggee fa yaroo suñu suñuy maam juddoo fa màggee fa yaroo ko amuñ fa benn mètre carré Mhm. kon dèjà ñii jóge sa àll ba ñoom ñoo ñëw sàcc suñu alal di ko construire biir ndakaaru ndakaaru di gën a xat léegi ñun ñi nga xam ne fa la ñu juddoo yaroo fa màggee fi il fallait ñu génne daw ay kilomètres même bu fekkee dañuy des biir région de fu sori la ñuy doo ko mën a kër ci loolu lépp alalu Sénégal yi ñuy yi ñuy déclaré ne moom la ñuy génne ba noppi di ko sàcc mhm. yow boo nee dix mille francs ngay génne dix mille francs yi jàpp leen nii six mille cinq cent yëpp ñoom dañ koy sàcc jël trois mille cinq cent yi ne moom moom la ñu def. ah investissement bi xam na ne moom ku foo ko dugal moom war a ah. feeñ. muy ci tali. waaye yow foo ko ci ci ci nekk na quatre cent foo ko dugal mu feeñ. te koo ci jàpp sa loxo. koo ci ñoom xam nga nu ñuy def. Hmm. jël suñu alal ji ñu moomal suñu bopp ne hmm. lii lii ñuy génne pour defar lii buñ ko génnee ne lii la ñuy génne pour defar lii. alal ji 400 milliards nga dégg ne moom lañ génne sa gafa gi Sénégal pour defar ko dañuy génne 400 milliards yow séddoo ko ba pare dem lebi beneen banque ci àdduna bi banque moom la ñuy construire jël li nga xamante ne moom lañ génne si gafa gi Sénégal moom la ñuy defaree ko ñoom seen biir la leb nag ñoom ñun sénégalais ñoo koy fay suñu. man nee naa bi Sénégal ci ceeb mi ñu dugg nee nañ 6 loolu ñu wax waaw ah lañ génne Thiès. waaw mais mais ku ci nekk xam nga ministère bu ci nekk normalement war nañ tekk ci sa programme ne la yow par exemple ministère de l' agriculture jox lañ la 2 milliards pour nga tabax ay xëy na ay hôtel ak yi ni mel ministre de l' ngeen jox ko 19 milliards exemple pour au moins abri provisoire yi nga xam ne ñoo nekk ci région boobu noonu ñu ñu mën a wàññeeku <laughs> gis nga gis nga Sénégal ngay gis réew moo xam ne am na ñoo xamante ne ñu Sénégal koo ci photo benn abri provisoire boo xamante ne nii ay saxkat critique lañ ko defaree xale yi di fa jàng boo ko photoay wan léegi dañ la non jamais non non non non Sénégal moo Sénégal amul lii boo demee capitale Dakar li ñu lay wan ñu ne la Sénégal dafa am ay abri provisoire ci ci zone yoo xamante ne nii région de Dakar sax am na fa pour te dire ma ne la am pagaay da ngaa fi am fi am pagaay am pagaay yow ñaata CM nga fi xam oui ma ñaata CM ñoo fi dégg naa la nga xamante ne sànq dégg naa la nga koy wax mhm. Mhm. sànq dégg naa la ngay waxu location bi location bi mën nañoo ba ba 2012 toogee ba léegi ne leen dañuy dañuy dañuy dañuy xool ay solution pour wàññi location bi mënta nekk. Mm-hmm. yow dèjà yow yow yow kër yi ñuy luwee yow yaa ko moom yow état wala ñu nekk si yow wala say xarit wala say àndandoo say am du jàmm. Mm-hmm. ñoom moom ñoom ñoom moom kër yi. Mm-hmm. ñoom duñu wàññi. maanaam ni ñuy naxe askan wi la ñu war a bàyyi te xam ne nit ñi dañoo yeewu ñoom ñoo ngi ñu jàppee ñu feebar te ñu ngeen leen di wutal garab bu ñu leen faje <laughs> loolu la ñu war a mën a loolu la ñuy war a mën a bàyyi beneen bi euh, la li may wax mooy euh, affaire u maître El Hadji Diouf ak yooyu wax dëgg yàlla ñun man maître moom wax dëgg yàlla yéena moo ko mu ñàkk liggéey loo xam ne si la euh, ci ci bindoon njabootam idi idi idi may ma laaj la may man laaj la xam nga yow naka nga am foo far waaw da nga foo far parce que am na am na ñuy am na xaw ma dañuy ruubee xaw ma dañ naan dañ naan yéen maanaam yéen yi nga xamante ne yéen ànd ak mhm. Ousmane Sonko ak ay avocat da ngeen ragal maître El Hadji Diouf <laughs> xam nga man personnellement ñi ragal Maître El Hadji Diouf bokk ma ci man Maître El Hadji fu mu defee sorti dama koy seetaan personnellement. Mhm. dama Maître El Hadji Diouf mooy benn avocat boo xam ne buy def euh, conférence presse dama koy seetaan ba mu jeex parce que xam nga lan sama anti stress la. ah déet waay man sama anti stress la personnellement. kon maanaam dama ko dama ko faa man. maître ba ñu ma ko de dama ko faa parce que sama anti stress la Maître la Hadji Diouf ngay laaj affaire de. affaire u projet e, e, hygiène après mu daaneele si Ousmane Sonko <laughs> nga laaj ko troisième mandat Macky Sall mu ñëw daaneele si Ousmane Sonko mais ñoom dañoo am problème parce que dañ leen fal pour ñi nga xam ne ay ministre ñu fal leen pour ñu defar réewum Sénégal ku ci dem toog télé doo wax yow ci liñ la nommé de ak ministre bi nga yor lan ngay doxal ak lan nga doxalul doo ci wax de la ngay njëkk wax mooy affaire Sweet Beauté loolu moom moo tardé Sénégal buñ tëjoo seen bureau mhm. buñ tëjoo seen bureau war a doxal loo xamante ne nii maanaam xool contrat yeeg loolu lan mooy jëmale Sénégal kanam duñ ko def de xoolal ñuy nekk seen groupe WhatsApp di kaa affaire waaj naan waaji waaji nan ban pexe lañ koy tegal. Mhm. waaji ban pexe lañ koy tegal. loolu moom moo leen tardeel Ousmane Sonko Sénégal leen rek la ko dénk muy lu mu yore Ziguinchor te yaakaar naa foofu na mu ngi koy def ay effort. Mhm. voilà donc yow mi nga xam ne dañ laa dénk pour nga doxal réew mi. yow mhm. ngir yàlla bàyyil Ousmane Sonko te nga lijjanti réew mi nguur boo liggéey nga war a a présenter dara. waaye fi mu toll amuñ dara loo leen présenté koo ci toog na ko présenté sa sa bilan la mu leen njëkk a wax mooy waaja di waaye yoon voilà yoon bu la wooyee da ngay dem yoon nangam procès bi voilà mais pour lan ñun fa lañu Ousmane Sonko ñoom lañ fal jox leen suñu réew ngir yàlla war a sóolu adduna bi ñu ngi ñuy raw réew Afrique bi ñu ngi ñuy raw nañu liggéey Sénégal fii ngay toog da ngay nekk au niveau de l'étranger sax benn Sénégalais boo koy dajal nga bokk ko moom yoon pour liggéey sax bu leen tase circulation bi bu leen nee naka mu yaa ngi si jàmm ça va naka waa réew ma la lay wax ndax yaa leen di dégg waaw maa leen di dégg koo gis mu ngi kërti kërti pour jéem a yónnee loo xamante ne da koy yónnee njabootu Sénégal ñun ñi nga xamante ne dañoo xam te ni chaque instant ñun ñoo ëpp lu ñuy war si seen émission yi xam nga pour pour lan nekkul dañoo am jot rek de nekkul dañoo am jot rek de ñun dañoo bëgg yeneen réew yi ñuy gis ni ñuy si suñu réew doxee noonu ba ñun ñu tourné ñibbi se toog si suñu réew ñun loolu lañ bëgg mais ñaanuñu yàlla retraité au niveau de l'étranger bëgguñu ko. Mm, vraiment dañoo bëgg a tourner ñëw si ñum réew looloo tax ñu sonn. Mm. réew mi li mu am ci alal bu ko delluwaatee buñ ko delloo ci réew mi rek ñun ñëppay tourner nekk ci réew mi. dëgg la neexul vraiment neexul. loolu neexul dara. idi mais réew moo. <laughs> merci li nga li yi am na solo. Euh, waaw nga may ma léegi léegi est-ce que dama la bàyyi nga dalal soxna jaara sax ndax waxtam jot na. waaw dama koy tënk dama waaw dama koy tënk ci une minute rek wala deux minutes. ayca mhm. bismillah gis nga gis nga euh, Macky Sall barki dem moo Ndiaye nee na moom dina def le tout pour pour aar pour aar wala euh, aar kilifa diine du dëgg. Mhm. mais yow mi nga xam ne yaa ni yow yaa ngi aar kilifa diine am na ñaar ñoo xamante ne ni Sénégal ñoo leen nommé ñu nekk ay ndaw réew mu nekk ay député yaa ngi leen tëj ci kaso la moo tax nga tëj leen. ñoom dañ doon aar kilifa diine nga tëj leen te yow nee nga yow da ngay aar kilifa diine mm-hmm. te yow kenn ku bokk si yow moo taxaw digg assemblée xott war ma kilifa diine koo xamante ne li mu am ci taal bi kenn xamul kooku noonu am ñu dal si kawam léegi ñu dal si kawam ñoom ñoom ngay tëj kooku noonu moom ngay bàyyi ba pare di ko di ko laajal indemnisation mm-hmm. kon nañ bàyyi naa fekk gi naa fekk gi kon sa kaw la wañ ngaa nga dagg sa njambaxaan nga di leen di mm-hmm. gërëm di leen sant jaa ngeen jëf kontaan nañ bu baax a baax euh, leeral yi am na solo waaye Jérôme fi mu toll dañoo <laughs> maa ngi koy nuyu tamit fa laay jaaree tamit nuyuwaale ñi nga xamante ni tam mm-hmm. ñoo ñuy seetaan à travers euh, suñu plateforme bi di YouTube rawatina chat en direct bi am na ñi nga xamante ni ñu ngi ciy mm-hmm. participer comme je l'ai dit à ci mm-hmm. euh, moom moo ngi ci wax bu baax a baax la source Mbenda Seck Moustapha Bodian Diarra Diop Alioune Ba bintu Lo ak Moïse Endurant ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ne nañ taaxar lu tuuti rek soxna jaare mi nga xamante ne moo fi yoone wàllum xibaar mu ngi ñëw daal leen